tey ci suba ci liggéey bu ñuy liggéey normalement ak saytu nga xam ne mesures yi nga xam ne moom la gouvernement bi jël pour xeex euh, mbas mi euh, ci suba cuy diggante juróomi waxtu ak juróom benni waxtu suñuy euh, élément ay nit yoo xam ne ñoo nekkoon ci booru Jann Malaari Saare Farim jëm Missira ak Saka secteur boobu lañ leen joxoon bu démé bañu julli suba ba pare xamna né ne ñooñu dañoo yaakaaroon né ñibbi nañu parce que 5 h du matin lañu waroon a ñibbi dañoo réere woon mbir xanaa ne gendarmerie liggéeyam guddeeg bëcëk la muy taw ak muy naaj ñu ci terrain ci lañu japp juroomi jàpp juróomi waxambaane yore won ay vélo na bañu séné lañu daw ñu daxant ak ñom ñu japp ci ñaar bañu ubé seeni bagage fekk nañ ci ñu yoré yamba ju bari bañ ko xayma mot na ñaari téméré kilo yamba ñu jappalé ci juroomi vélo ak ñaar ci ñinga xamné xam ne ñoo yore woon marchandise bi ñooñu ci jamono ju ñuy wax euh, ñooñu ñu gi ci brigade ba séju ñu japp ñu continuer l'enquête bi nga xamné suba wala ginnaw suba danañ ko yobbu ci euh, procureur nga xamné ñu continuer na non lañ ko leen mëna a euh, marchandise bañ ko yore bañ ko xayma daanaka tollu na ci ñaar fukki millions moy biñu japp tay mais so delo ginnaw al altine ñaari bes ci ginnaw japp nañ encore euh, lu tollu ñaari téméré kilo ak fanwer ak juróom soko ko da na tollu ci ñaar fukki million ak juróom ben fukki junni ak juróom ñaar donc so xolé lolu ci ñetti ci ñetti fan rek lolu lepp su ko benn nit day am lu tap waaye lu may conseiller xale yi daal mooy comme que yàlla def na nawet bi installé wu na nañu bay ji moo gën bi parce que xaalis la boo xam ne bi bëri na ci dégg-dégg waaye ku ko ci yor tamit doo ko lekk ndaxte lekkin nga daal doo du demee ni nga ko yaakaare donc maa ngi ñaax nit ñi euh, non seulement ñu continuer di ñu jox renseignement yi mais également ma wax jeunes yi daal jublu ci liggéey bi daal xam naa ne moo gën. ñaari doom mu ngi bàyyi koo Guinée Bissau ay Bissau Guinée yaa